Euh, gàmmu gàmmu piir ren yi mooy téeméer at ak ñaar fukk ak benn ñu koy def gàmmu la koo xam ni Seydi Seydi El Hadji Malick Sy moo ko dogaloon en 1902 donc gàmmu piir ak gàmmu Tiwaawan ñoo bokk ay at moo yónni woon sunu maam ab Abdou Cissé à Pire niko ko suma suma suñ defee ya gamu Tiwaawan suñ ko suñ ko suñ ko tuddee yow une semaine après nang ko ngenté motax tax gàmm ñu wara def une semaine après gamu Tiwaawan pendant de longues années aduna di dox di dox di dox ba xam ni alors euh, dañu mujj donc pour yoowaat yeneen date yo xam ni alors euh, moo gën ci organisation bi di ci d'accord nag ak suñu kilifa yi nga xam ni ñoo nekk Tivaouane parce que Pire ëttu Tivaouane la Tivaouane aussi ëttu ëttu Pire la donc euh, lépp lu ñu dogal ci loolu dañ ci ànd ak ak xalif général bi ba nga xam ni jox nañ ci ndigal ñuy door di décider de la date définitive Tay nak comme euh, ni état bi yàgg a CDD bi amna na jitu ci préparation euh, gàmmu bi au niveau de l'État bala balaa CRD bi monsieur le préfet convoqué réunion bi tey jité ko ci ni mu gën a rafete chef de service yëpp wax comité d'organisation aussi ñëpp wax. ba xam ni problème yi am yëpp posé nañ ko d'abord dañoo jëkk kontaan ci ndimbal li nga xam ni moom la état bi di indi ci gàmmu piir parce que dañu fekkee ni dañoo jël téeméeri poñ yoo xam ni lu ñu laaj gouvernement bi la juróom-ñeent fukk ak juróom yëpp gouvernement bi dina ci def lu ñu war kon boobu loolu rëy la kon boobu kenn ëppalewul Pire ci li état bi def dimbali këru diine yi ci affaire gàmmu noonu lañu donc euh, liggéeyee seet li nga xam ne yëpp def nañ ko daaw ak li nga xam ni moom lañu war a yokk li nga xam ni moom lañu war a gën a defaraat ak ay demandes yoo xam ni yu bees la sur tous ces points là le, le CDD a accepté de nanguna eh, def lepp lo xamni eh, service yi man nañ ko pour eh, demande yu bes yooyu yep. liñ ci man lepp ñu def ko pour gamu gi di gën di am di gën di am sans difficulté il faut dire que vraiment amul ben difficulté majeure maanaam nag gàmmu dafa dafa 10 il faut que chaque année ñu mëna def évaluation c'est na nañu ko mën rek monsieur le préfet de ah, nga transmettre ñu remerciements et gratitude au chef de l'État son excellence monsieur le président Macky Sall à son gouvernement pour cette attention cette solitude Nous avons toujours ci gàmmu bi Je remercie particulièrement aussi ndax ñu nga ci taxawee ni nga amee itte eh, ci kër suñu këru diine bi bu dégg bëccëg yaa ngi nemmeeku yan problème moo fa am di fa ñëw di téléphonante ak ñun di ñu laaj fan la préparation gàmm gi toll ñu lay gërëm bu baax a baax yàlla na yàlla fay. tey ji bis bu am solo la ñu daje woon fii tey jii pour waajal. bis bu moye moy euh, gamu annuel bu Pire ñu koy def di euh mam Tafsir Abdou Cissé waye tamit di magal yonent bi sallallahu alayhi wa comme niko le vice wa waxe sank le khalife tamit ñew ci kon ndaje bu am solo la bo xamanteni ni bi euh, li fi juddoo ci ay ak ay engagement dal na xel ci ne incha allahu dinañ am gàmmu gu mucc ayib mais ngeen may ma rek ma profité ci itam pour nuyu bu baax a baax le xalif euh, excellence Pape Abdou Cissé di ko nuyu di ko ziyaare waaye itam di ko ñaanal ci yan bi nga xamante ne bi moom la ko yàlla yan mu nekk ci buntu kër maam Tafsir Abdou Cissé yan bi yàlla na ko yàlla téeñal yàlla na yàlla may la ci ndam ci loolu tamit di yeesalaat sunu njaal bu baax ci ki fi jóge bu ba bu yàggut mooy Serigne Mansour Cissé doon sunu wayjur doon sunu xarit doon ku baax yàlla na yàlla eh, yokk leeram yàlla tamit teg loxo ci njaboot gi du ma mën a ñàkk tamit nuyu macha allah délégation bi nga àndal nga wax ne délégation bu historique la maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ki santam mais duma ci ñàkk lim sa rakk yu baax yi nga àndal njëkk cee sëriñ Serigne Maodo Cissé le vice xalif fegoog yow nii moom tamit di ko nuyu di ko ziyaare di rafetlu tam taxawaayam bu baax a baax ci kër gi démb sax tay doora a ñëw loolu mën nañ ko sédé bu baaxa baaxa baax donc euh di nuyu tamit sa rakk ju baax ji Serigne Cheikh Tidiane si c hein mom tamit diko nuyu bu baaxa baax ak euh, seen jarbaat yaakaar naa wala seen rakk lépp benn pap si c mom tamit diko nuyu bu baax di nuyu tamit imam yi ngeen àndal jóge ci dëkk ba ak mbooleem membre comité d'organisation bi fàttewuma tam le maire de la commune de de de Pire ak le conseil départemental di nuyu tam bu baax les chefs de service ndax ni ñu ko gisee euh, yaakaar naa ne ni comité d'organisation mobilisé woo noonu la tam chef de service yi mobilisé woo kenn sax nangu ko wuute ku ne da nga bëgg a teewal sa bopp pour wane ne yëf yi dëgg la préfet daf la convoqué da war a ñëw waaye tam da ngay war a ñëw tamit feeñal sa yéene eh, ngir jëf ci bis bi sàkku sàkku barke sàkku tuyaab loolu yëpp nag day wane eh, eh, solo gu état du Sénégal jox solo chef religieux yi rawatina li nga xam ne moom la ñu waajal muy gàmmu annuel de Pire mm-hmm. loolu aussi lu lu am solo la ah gàmm gi nag nekk gàmm goo xamante ne bii yaakaar naa ne ku ko xamul tamit dégg nga ko mm-hmm. muy gàmm gu mag a mag ci réew mi ay nit ni bayiko fu nek ci bir rew mi ak bitim lol nak da dafay tax eta am warugar ci taxawu ña fay ñëw ci walu wergu yaram wax nañ ko fi bayiwu dara ci walu sécurité wax nañ ko fi bayiwu dara ci walu environnement bañ fay fekk mo xam ci walu set gi la walu assainissement ak lepp luñ fay jëfëndiko ba ca lañ fay lewatal ci walu ay jur wala lañ fay jëfëndiko ci ay produits loolu yëpp service ya nga xam ne bi ñoo koo ŋànk àddu nañ ci waaye itam fexe ba lañ fay jëfandikoo ci lu mel ne courant wala lu mel ne wàllu ndox wala lépp lu jëm ci wàllu cet ga amul benn aspect boo xamante ne bi bàyyi nañ ko ndax lépp rek dafa jëm ci euh, fexe ba ña ñëw bu ñu ñëwee nekk fa ci anam yu mucc ayib ba mën a joxe la tax ñu jóge fa ñu ñëw fa mooy Euh, màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam fàttaliku sunu maam joogi di maam Tafsir Abdou Cissé kon sëriñ bi mën nañ ne xel gën naa dal ci liñ fi dégg waaye itam xel gën naa dal ci seen taxawaay li nga indi gis nañ ko innovation yi tamit am na solo yoo xamante ne bi gën na dëgëral sunu njort ci ne incha allah yàlla danañu may euh, gàmm gu mucc ayib nu raw sax nam ñu ko daan maye ndax donte sax at yi macha allah waaye ren xel gën naa dal bu bu baax a baax. kon loolu laa bëggoon a wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne gàmm gi ñu ngi ko jàpp incha allahu samedi 9 décembre bi ñu dëgmal euh, lañ ko lañ ko jàpp ca piir kon loolu yëpp nañ ko noté jàpp ko man ci bàyyi xel bu bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di itam euh, jeexal rek ci ñaanal le xalif général de Tidiane en vertu de relation yi am diggante Pire ak Tivaouane mun ñu tamit jeexal te nuy wuñ ko nuy yi gën a tedd ziar ko ñaan yàlla yàggal ko fii lool te ànd ak wér mu continuer uuf njaboot waaye tamit eggale naa li nga xamante ne bii naanal na ko maam ju tedd ja loolu laa bëggoon wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp